alors bu loolu weesoo El Hadj Elias Ndoye ah Elias nag d'accord ma ci li nga wax droit de la femme bafoué au Sénégal je ne suis pas du tout d'accord Sénégal bokk na ci réew yi gën a sàmmante ak àqu jigéen ñi Sénégal dafa def loi pour la parité sur les fonctions élective loolu réew yu mag yu bare bare amuñu ko amuñu ko réew yu mag yi coow fi yëpp di wax démocratie droit de nangam nangam def amuñu ko ensuite ñun dem nañu def criminalisation du viol il faut savoir que am na ñu bare ñu nekk ci kaso bi actuellement ñoo xam ne dañu doon violé am na ñoo xam ne ñu ngi xaar seeni procès ci biir non No, no, no. No, no. Non, non, non, non. Attendez, attendez. bu ma wax loo lu ma waxul li ma bind mooy loi criminalisant le viol attendez beaucoup de personnes sont en prison actuellement ou attendre leur procès mooy ñu nekk si kaso bi ba pare parce que dañ leen jàpp ci condition yoo xam ne amul benn sikki sàkk ñu ngi déjà en prison et ils attendent leur procès loolu laa wax donc bu leen ko yóbbu feneen alors léegi kon Sénégal wàccoon na mu ngi mu ngi bàyyi xel dëgg-dëgg nu ñuy défendre jigéen ñi ak xale yu jigéen ñi ak ndaw ñi sax avec la pédophilie qu'on a criminalisé aussi maintenant charte de l'enfance bi nga wax lu tax ñun defuñu ko biñ ko saytoo bëgg ko def andi nañ ko ba conseil des ministres charte boobu Nations Unies ñoo ko njëkk a def waaye bañ ko defee gis nañu ne laxas nañ si lu bare maanaam xale amoo droit wax wax ci kaw yuuxu ko amoo droit pes amoo droit laal comme tëgg tubaab bi rek sa doom sax ñamoo ko ñamoo ko sax xool muy benn ñaareel bi dañ si dugal loo xam ne gis nañ ne dañuy bëgg ñu jàngal xale yi yoo xam ne bu yàggee seeni jikko du baax par rapport ak suñuy culture muy mbiru ñaari loxo yi ñaari xaw ma nag ñaari tur yi donc loolu moo tax ñu jël kayit boobu teg ko fële mais ñu ngi def lu ne pour défendre droit xale yi droit jeunesse bi droit de l'enfant euh, ñu ngi def tout pour xeex xale yi nekk ci mbedd mi ñu bañ di leen bàyyi ci mbedd mi di protéger gone yi di leen jàngal et cetera et cetera donc loolu laa bëggoon wax à Elias euh, xam naa ni sax li taxoon mu wax du woon pour wane ne Sénégal deful dara waaye en tout cas droit de l'enfant bi loolu moo ko bloqué parce que texte bi nga xam ne boo jógee Nations Unies ñun jubbuwuñu parce que parce que kenn kenn mënuñu si forcer